jërëjëf ñu ngi leen di nuyu di leen remercier di remercier di remercier population Tivaouane yëpp di leen baal wax ci koor gi di leen baalaax di ñaan yàlla mu defal ñu kooru jàmm ñu koor ko si ñu woor bu woor bi si bisimilah rahmaan rahim àggale ko si alhamdulilah rabbil alamin ah, tey nag dañ doon def conseil municipal conseil municipal bi nag bare woon na ay points bare woon na ay points parce que dafa bari woon ay problème yoo xam ne il fallait que d' abord ñu waxtaanee benn bi mooy information information bi dañ doon yëgal nit ñi rek li nga xam ne moom lañ fi jot a def depuis que ñu commencé liggéey wala depuis conseil municipal bi passé ba léegi diggante bi li fi xew lañ leen wax expliquer donc loolu yàlla def na peut-être bari na ay points yoo xam ne que jot nañ ko fi def ndax am nañ ci visite boo xam ne def nañ ko ak waa Promojet

loolu it départ la rek bari na ci lamp yoo xam ne indeeguñ ko à partir de mois de mai mois de juin la ñu commencé installer lamp yi pour village yi nekk ci commune bi yëpp ak yenn artères yi nga xam ne amagul amagul truc amagul truc bi ci des mooy am na loo xam ni que projet yoo xam ne aussi dina fi commencé projet bu mel ni comme ville ñoom ñëw nañu fi déjà ba commencé def nekk ci technique commencé nañu jël aussi li nga xam ni moom la ñuy def parce que ñu ngi jël l'ensemble des euh, euh, koñ yi nga xamee ni que war nañ fa dem ñi ngi étude de sol bi euh, commission technique bi ñëw na fi ñi ngi koy xool ñu ngi vraiment aussi def nañ ko n'est ñi ngi sur place beneen bi ci des aussi am aussi affaire au ONAS bi mooy affaire inondation yi di assainissement eaux pluviales aussi ministre bi ñëw na fi barki dem waxtaan nañu ak mom

muy ñoo xam ne muy ma jigéen mbay ak euh, ami mbay ñoom ñaar lañ doon remplacer parce que ñoom ñaar ñëpp dañoo mujj jëlaat si maire bi parce que seen liggéey si incompatible ak nekk conseil municipal beneen bi ci des mooy dañ doon def ay délibération délibération bi mooy xa yëg kenn ku ne xamoon na ni maire Faye ñëwoon na fi ñu waxtaan ak moom donc il fallait que ñu def benn délibération boo xam ne bu ëllëgee dinañu mën a def jumelage ak mairie Faye def nañ ko aussi ak beneen mais commune bu au niveau de l'Italie moom aussi defal nañ ko la même chose avons fait un projet de convention bu ñu nous nga xam voter pour que au moins ñu mën a def jumelage ak mairie boobu nekk en Italie bi loolu weesoo defal nañu benn autorisation pour PDC bi projet de développement communal bi avons aussi amoon nañu déjà bu fi mais bu ñu doo nañ ko récupérer boole ko li nga xam ne moom lañu avec les nouvelles orientations ñu créer benn plan bu bees boo xam ne mooy moo ëmb cinq ans yi ñu jëm beneen bi ci des mooy am na benn donation bu ñu fi indi yoon mais ñu ay table ay chaise ak ay matériel médical il fallait que ñu voté ko pour ñu mun ko distribuer comme naka lañ ko nit ñu ko joxee beneen bi ci des mooy am na ay zones yoo xam ne il fallait que ñu voté ko ndax PDU bi daf ñu déterminer ay zones zone bu ci nekk nag lam fa déterminer moom la ñuy def moo tax tey ñu daal délibéré benn zone industrielle boo xamee ni ay plus de 100 hectares la déjà fa la ñuy implanté champ de euh, champ solaire bi nga xam ni moom la ñuy jox jàkk ji ci côté boobu la nekk donc boobu tamit def nañ ko voté nañ ko voté nañu aussi beneen délibération boo xamee ni mi ngi concerné le domaine fi nga xam ni agricole mooy fi nga xam ni fi ñu war a nous ñu ne kon dañ fa war a kon nañu ba aussi déterminer pour ñu place bii kat place place du place du place garage du place place pour voté ko ci conseil municipal bi parce que loolu PDU daf koy wone dafa lay zone bii fi def zone bi da fi war dëkk zone bi da nga def industrie bi mooy voté nañ aussi pour stade départemental bi projet la boo xamee ni que am nañ ko woote Kër Diop ça fait dix hectares voté nañ aussi benn marché international boo xam ne dañ ko bëgg a créer muy marché boo xam ne daf ñuy permettre fruits et légumes yi nekk ci gox bi yëpp ci département bi yëpp ñu am foo xamee ni que bu ëllëgee bu ñu amee ay chambre froide bu ñu amee seen excédent yi nga xam ne moom la ñu am jaakaar yi dañu am fu ñu mën a denc seen ay légumes ak ak seen soble ak seen pomme bañ mu yàqu nañ au lieu ñu koy yenu di ko yóbbu ba Ndakaaru au moins ñu def ko fii nga xamante ne si biir département bi la nekk parce que fii lañ koy liggéey ci département bi kon au moins bu ñu amee marché boo xamee ni am na l' ensemble des communautés dina permettre au moins nit ñi seen commerce seen alal du yàqu te nit ñi ñu bëgg a defal nañu ko defal. beneen bi ci des mooy woote nañu aussi benn beneen centre de santé bu bees xam ngeen tey pose nañu premier de pierre benn benn poste de santé mais am na beneen poste de santé boo xam ni tey ren.

ci li ñu ñëw après nag ci délibération délibération yi képp koo xam ni da nga am tool bugg a këyit ñu defal la délibération délibération yooyu moom lañ ñu doon voté tey ñu ngi d' accord ak conseil municipal bi dañu déclarer ne un hectare bu nekk léegi un million de francs la ñuy fay pour la déclaration. pour ci champ bi la moom lay wax ci tool yi. beneen bi ci des mooy frais d' aménagement et de lotissement ci dans les lotissements autorisés foofu tamit waxtaan nañu. waxtaan bi yaatu na ni kenn ku ne joxe na sa xalaat xalaat bi ñuy accès woon fii ak ni ko bëggee woon def bi ñuy waxtaanee conseil ba gis ni que ñoom ñëpp li nga xam ne ci la ñu gën a d'accord moo ñu def ko deux cent mille kon ñu jàpp ne lotissement autorisé yi fi nekk yëpp à partir de tey jii nga xam ne ci lañ ko voté ba kuñ ci kuy fayati rek deux cent mille ngay fay ñi fay ba passé nag taxul ñuy wax ñooñu fay nañu ba pare amuñu dara lu ñuy remboursé dara lu ñuy yokk ñooñu fay nañu ba pare. Nous fayagul lañ wax loolu aussi bëgg nañ aussi mu leer côté yi nga aussi concerné wul lotissement autorisé yi foofu tamit la fa nekkoon cent francs la ba francs boobu la ñu ba léegi laaruñu ko ci lotissement autorisé rek la ñu dugal beneen francs muy deux francs bi des bi nga que affaire coopérative parce que dafa am coopérative yoo xam dañuy pour terrain pour def seen i ay pour seen

war nga mën a fayal ñi ngay déplacé aussi pour ñu fay loolu aussi liñ ci laaj saa dépendra ci ni ñu négocier mais minimum bi moom un million lay doon en tout cas lii moom tey ji moo doon li nga xam ne moom lañ doon def tey ci conseil municipal bi yàlla dimbali nañu ñu voté ko benn point rek point yëpp dañ ko voté à l'unanimité amu ci benn point boo xam ne voté nañ ko à ba mu des benn point benn point boobu mooy ban mooy bi nga xam ne moo indi affaire lotissement bi mooy fi ñu wone dañ koy yokk pour deux cent mille ndax 500000 lañ déparé woon nit ñu wàcce ko ba 200000 francs kon nag kon loolu benn rek moo ci nekk nga xam ne dañ ko voté à la majorité amul beneen amul beneen ci conseil boo xam ni boobu boobu rek nañ fi voté à la majorité li ci des yëpp c'est voté à l'unanimité en tout cas ñu ngi leen si remercier di remercier conseil municipal bi di wax ne que ñun population yi ñoo ñu dénk seen alal. kon dañ ko war a fexe ba lépp lu ñu ciy def bu ëllëgee ñoom ñu xam ko xam ni seen alal bi ñeen di liggéey kat téye nañ ko ni ñu ko war a téyee pour que bu ëllëgee bu ñu taxawee seen kanam du ñu rus ñoom it bu ñu gisee am satisfaction ci la ngeen doon liggéeyal ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant. asalaamaaleykum xëy na bala teg am na dossier boo hérité muy ñi nga xam ne amoon nañu parcelle ci lotissement yu yàgg yi da ak yooyu. gis nga problème yi ci am ak yeeg yooyu. waaw foofu ak ñi nga xam ne tam jotoon nañu dugal seen. boobu tamit damay dañuy wax benn wax bu leer képp koo xam ne jot nga attestation attestation bi dañ ci bind ne bu fekkee ni que yow ñaari at yi di ñëw liggéeyuloo fa dara dañ koy nangu amatuloo fa këyit dañu ne këy ndax këyit yi ñu jox dañu ne deux ans lay valable bu fekkee liggéeyuloo fa dara bu fekkee nag da nga fa def kër loolu yaa moom sa kër.

Nous avons ko pendant dix ans fayuloo benn frais wu commune bi amuloo këyit ndax boo instant am nga ndax commune mais bu fekkee fayuloo ko nag jàppal ni këyit rek lañ nous këyit ba nga moom nga yor këyit boobu nag instant bii boo bëggee mu valable da ngay ñëwaat fii ñu seet ndax këyit bi double emploi ndax amul keneen ku ko jox sa ginnaaw ndax amul amul amul amul ainsi de suite loolu moo tax ma ne ku ñu jaay terrain nu boo xam ni kenn liggéeyu fa kenn def fa dara du kër du dara ñu jox la ko xamal ni këyit lañ la jaay mais jaay ñu la suuf loolu aussi bëgg naa aussi mu leer ñëpp a xam ko xam ne que loolu la waroon demee en tout cas. ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm. benn rek laa bëggoon laaj ah, parce que par rapport ak euh, délibération wu terrain yi nga wax ak coopérative yi ak ñoom it seen. Hmm. on a vécu euh, l' expérience des HLM COTT ak HLM Sëñ Mansour. tout au début d' aménagement bi dafa amoon ay terrain basket dafa amoon des yoo xamante ni sax dañ ko waroon pavé. Hmm. mais ba tey jii may wax ak yow amul dara loo xamante ni respecté nañ ko par rapport ak ñoom seen protocole yi ñu signé woon est que de votre côté euh, terrain yi nga xamante ni war nga ko joxe ak ICS ak. ñoom engagement est-ce que nga am taxawaay bi pour que ñu jël respecter à la lettre ci terrain ci wàllu école etc. cetera tali ak Je vous jërëjëf euh, dama leen di leeral nga képp ku jël engagement ak mu bi dala jox dara respecter engagement ndax vous jox la ba si yow daw du ko def nit ñi engagement

loolu moom na seen xel daal en tout cas ñu li ñu gëm mooy assainissement wala euh, aménagement bu ñu wax ne dinañ ko def ak ku ñu signer contrat aménagement bi ni ñu ko bëggee di ko defee ni incha allah bu soobee. monsieur le maire euh, benn point am solo mooy fiscalité locale gis nañu xale yi ñu ngi dem sur le terrain donc population bi si bëgg naa xam ñoom lan mooy seen tànk ak seen taxawaay ci biir dëkk bi pour ñu leeral leen seen njëriñ bi. waaw jërëjëf fiscalité locale loolu moom c'est pour faire l'assiette fiscale de la commune commune bu nekk da ngay am assiette fiscale boo xam ne dafay dépendre impôt yu domaine bu Dakar assiette fiscale boobu seeni doom lañ ko jox pour ñu dem def enquête bi ndax fii bari na ñoo xam borom kër yoo xam ne yor nañ seeni kër wala yor seeni place bëgg a këyit te mënuñoo am këyit bu valable pour nga am këyit bu valable nag il faut que sa kër am nikat nikat nag pour nga am il faut nga am plan cadastral pour nga am plan cadastral il faut nga am nikat loolu aussi pour nga am bail il faut nga am plan cadastral bu am nikat boo xam ne mooy tax nga mëna am bail wala mën nga tax nga am titre confiance ndax lolu moy carte d'identité wu place bi nga dëkk légui xalé sen seen liggéey bi ñuy liggéey ci lolu la dépendre ndax lolu la ñuy liggéey actuellement ñom buñ ko liggéeyee ba paré ci centrale bi lay dem directement centrale bi dina génnee lépp loo xamee ni impôt la wala tur la bo xamni war nga ko fay ki ki bi lolu moy assiette fiscale commune mais dimbal mi nga xam ne lañ ci défal aussi moy dañu permettre kenn ku ci nekk daañ la mun a jox sa këyitu kër te doo daw wuti waat ko doo ko wuti cest bu enquête yi pare ba mu jeex bu ñu joxee kenn ku nekk dañuy génne waale sa këyitu kër ndax kenn ku ci nekk nañu laaj carte boroom kër gi dañ la laaj lan moo ko moom kan moo ko moom ñaata nit a fi dëkk pour lan lañ fi dëkkee ak kenn donc tur bi génn ci turu borom kër gi lay génn loolu aussi xale yi ñu ngi koy liggéey. te bu demee ba sotti ba kayitu kër yi génn ba ñu distribuer ko bu boobaa di ngeen xam ni que liñ doon liggéey am na njariñ pour dëkk bi la mais aussi pour nit ñi seen bopp kenn ku ci nekk sa kayitu kër sa sécurité kër mooy am nga sa sécurité sa kayit ngi sa diggu loxo loolu aussi vraiment ci loolu boobu la ñuy loolu liggéey boobu la xale yi di liggéey ñu bëgg vraiment ngeen jàppale leen si bu baax a baax accompagner leen parce que li ñu defar pour dëkk bi la te dëkk bekk moom asalaamaaleykum